internetu Senego TV ak Kawtef ñu ngi leen di nuyu di am contentement saa su ne ñu ngi leen di suivre le suñ programme sur nos différentes plateformes muy Facebook Instagram TikTok gis ngeen rek saa su tamit noonu la ñu leen di indilee ay ñi nga xam ne ay ndaanaan lañ buñ ne ndaanaan nag définition bi day large parce que ndaanaan dina nekk ci âge. ndaanaan dina nekk ci capacité ndaanaan aussi dina nekk ci talent. only you you you be the one I need oh yeah ma dama ko sama fit bi tëb jox naa na bu caat wéetal nga ñëw. saa yu ma yeewoo dugg sa néeg. sa fit ñëw dingen gaan niet best meer Koko wach ken en don jo Aduna te changa nama Shiri boy Te lor ngam ba tey buñ leen waxee ni Amira ci ndaanaan ni la bokk <laughs> duñ ko weddi mais balaa ñuy dugg rek ci waxtaanu ndaanaan ak entre autres ñu daal di ko nuyu di ko daral fii di rafetlu aussi ni mu ñëwee accepter suñu invitation fii ci Sénégal Amira ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi leen di fay merci beaucoup ci invitation bi je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous. Mm-hmm. <laughs> c'est partagé ñun tamit kontaan nañ bu baax dalal la fi ci Senego TV ak kawteef euh, tey ci waxtaan bi nag euh, dë pacc lay doon première partie bi dinañ wax sa projet bi nga xam ne daal di nga ko fësal mm-hmm. mu nekk EP am ay titres yoo xam ne yu yu neex yu toj <laughs> <laughs> yu nice xale yi di ko di ko enjoy jamono bi ci décembre bi deuxième partie bi aussi dinañu waxaat Amira ci côté people ak côté euh, sujet d'actualité mais tey dañuy mm. ñëw ci projet bi nga xam ne euh, depuis deux ans sa fan yi ñu ngi lay xaar à mm. travers Chéri Coco Sénégal yi bëgg li ngay woy mm. bëgg aussi ce style musical tey nga indi leen benn EP expliquer un peu mm-hmm. Sénégalais yi projet boobu contenu bi ok donc euh, sama EP bi sa s'appelle Filmi qui veut dire en français wala en wolof yëg ma wala Ressens-moi, quoi. Ouais. Euh, parce que c'est très simple à expliquer. Je suis une personne, boo xam ni mm-hmm. euh, je suis très sensible. dama gaaw a yëg dara ci sama xol te dañuy naan lu jógee ci xol dafay dem ci xol. Mm-hmm. En plus, en tant qu'artiste, si j'ai l'occasion de pouvoir partager ce que je ressens ou ce que je vis mm -hmm. avec mon public, mm -hmm. c'est genre <laughs> c'est extraordinaire parce que c'est pas tout le monde qui a la possibilité de faire ça. Mm -hmm. Donc film yi c'est un projet boo xam ni il y a plusieurs styles de musique, musique si. et plusieurs sujets différents mm-hmm. mais qui tournent tous autour de yëg-yëg. Mm-hmm. Donc mooy loolu voilà en gros l'aspect de du projet film yi. d'accord et c'était facile parce que deux ans la ñu gis euh, Chéri Coco. Mm-hmm. Sénégalais yëpp bëggu ko. Mm-hmm. est-ce que c'était facile nga ñëw présenter leen euh, projet bi en l'espace de deux ans. ok donc euh, Chéri Coco c'est sorti en 2020 mm-hmm. si diggante bi génne naa yeneen single bul ko fàtte xale bi moo ngi fii euh, donc j'ai eu le temps de d'évoluer musicalement techniquement. personnellement parce que nit day màgg nit day évoluer mm-hmm. donc si diggante bi j'ai découvert des choses j'ai appris des choses euh, gën naa xamante ak public bi ma bi may déglu mm-hmm. donc j'ai su que l'essentiel public bi ma am il me montre carrément que ils apprécient ma personne te je le dis sans aucune prétention hein et mm-hmm. je sais que artiste buy def benn projet wala buy établir buy réaliser dara c'est en partie sa personne qui contribue à ce produit donc bu fekkee nii sa publique bëgg nañ la donc loo mën mënti def en principe dinañ ko dinañ ko mën a accepter dinañ ko mën a recevoir mm-hmm. parce que voilà c'est ce c'est comme ça que la chose mm-hmm. marche ok en même temps aussi Amira on voit que tey jeune nga nga commencé ci milieu showbiz mais da am ay ay repères su ma ne da nga am ay repères on a vu que à travers sa chanson yi ngay def rendre nga fi hommage ki nga xam ne mooy jibi Ba à mhm. travers Chéri ko mais aussi yemoo foofu euh, rendre nga hommage ki nga xam ne mooy Youssou Ndour mhm. récemment rek ci EP bi on a vu que ñëw nga ci Ismaïla Lo aussi ak mm-hmm. Nabou mm-hmm. une très belle chanson un très beau morceau mm-hmm. euh, je le cache pas man bi ma nekkee xale daanu moon déglu woyu Sénégal wala woyu olof parce que euh, peut environnement bi ma màggee c'était très francophone très occidental te si euh, automatiquement j'ai plus été attirée par les chansons occidentales ay Disney ak yooyu noonu. Mm-hmm. donc bi ma commencé wee bi ma génnewee Chéri Coco ci période boobu laa commencé découvrir véritablement musique sénégalaise. tu mm-hmm. vois donc euh, j'ai réalisé que j'ai raté un peu <laughs> ci <laughs> ci euh, ce que les artistes sénégalais nous proposent. Mm-hmm. et bah. il s'avère que j'aime beaucoup ce qu'ils font, surtout les chansons qui datent de, de plusieurs dizaines d'années en arrière. En plus, yàlla def na j'ai eu l'occasion de pouvoir rencontrer ces trois personnes yi nga xam ni j'ai eu à revisiter leurs morceaux et mm-hmm. j'ai été ravie franchement parce que ñoom ñëpp ils ont été très généreux avec moi. Mm-hmm. ils ont ils ont été très réconfortants parce que su may wax. ak ñoom ma ñëw ne leen ah man de sa tel wooy maa ngi ko bëgg woyaat et tout euh, c'est pas le cas de tonton Pape Djibi parce que moom on a juste eu un bref contact avant muy génn mais bi mu génnee daf ma ñaanal encouragé ma et tout tonton Youssou tamit macha allah on a j'ai eu l'occasion de le rencontrer on a eu à jouer certains à certains événements ensemble de Seven Seconds. Mm-hmm. donc euh, tonton Ismaël Lo tamit je l'ai croisé plusieurs fois te à chaque fois macha allah. On a de très bons rapports et je suis ça me fait énormément plaisir de pouvoir reprendre des morceaux yoo xam ni ça a touché le public sénégalais et que man ma mën ci ñëw indi sama touche et que ça plaise encore Mm-hmm. oui c'est c'est c'est important. Mm-hmm. ñoom tamit ay ndaanaan lañ. ki nga mm-hmm. xam ne mooy suma jigéen Ndour. macha allah <laughs> macha <laughs> xale mun na cee fecc mag aussi. mun na cee fecc ba tey nga jël boobu boobu siège Amira parce que bu ñëwee ba tey ci IP bi. gis nañ. Euh, variété musicale bi nga présenté say say mélomane say mm-hmm. fan c'est c'est en fait mm-hmm. parce que bu ñëwee euh, gis nañ ci R&B bi mm-hmm. euh, gis nañ ci zougloof gis nañ ci mbala mais gis nañ fi afrobeat ci titre Bena ak Seven Seconds ak Chiri Koko tey Amira Mm-hmm. est-ce que euh, dafa am benn cible au niveau international parce que ñëw rek focaliser wu carrément ci mbala mais dafay ñëw def benn variété musicale boo xam ne mm-hmm. day laal Sénégal mm-hmm. ñëw États-Unis jàll Niger entre autres euh, comme ni ma ko waxee woon sànq rek bi ma nekkee xale bu ndaw je consommais beaucoup de musique occidentale donc loolu probablement ça a man samay goût et ensuite euh, Le Sénégal, c'est une cible. L'international aussi, c'est une cible. Donc, j'aime le mbalax, j'aime le R&B, j'aime tout ça. Donc, euh, je me suis dit, pourquoi, me priver naa def li ma neex naa def li nga xam ni fil naa ko. et loolu moo indi probablement que projet bi ñëw nekkul si benn mënuñ ko ranger si benn case. parce que on a pris la liberté man ak ñi may liggéey on a pris la liberté de d'explorer plusieurs styles musicaux Moi, franchement, j'ai enjoy pendant que j'ai enregistré au studio. Mhm. Et je pense que ici au Sénégal, euh, on ne consomme pas que du mbalakh. Mhm. Tu peux bien et bien aimer du mbalakh et écouter aussi des chansons d'un autre style qui n'est pas africain peut-être. Mhm. donc voilà donc euh, maa ngi nii daal lu ma lu ma <laughs> sentir rek ma dama <laughs> Mhm. dangay rendre hommage Céline Dion wala parce que je bi non c'est c'est extraordinaire <laughs> Amira je ne bi mhm. nga wax ñu euh, Amira je ne mhm. nan la la dikkalee euh, en plus euh, booy booy booy déglu je ne suis c'est comme si da ngay déglu Céline Dion je ne suis mais ba tey du benn mais voix bi Amira ah bonne voix mais bon franchement si c'est par rapport à la voix je sais pas trop quoi expliquer parce que je viens je chante bien je travaille un peu la voix après je chante loolu laa si loolu laa si mën expliquer je peux pas euh, j'arrive pas à deviner comment je fais peut-être mais euh, je ne suis pas c'est une chanson boo xamante ni bi ñuy commencé di si liggéey moi-même ça m'avait énormément touchée et pour te dire avant ñuy euh, dem enregistrer ko au studio J'ai pu travailler dessus à la maison d'abord et j'ai pris tout mon temps voilà ma koy dem enregistré ji j'ai pris tout mon temps j'ai bien capté j'ai bien étudié l'environnement de la musique l'état d'esprit de cette musique de cette chanson de ce morceau du sujet dont on parle et tout et j'ai pris le temps d'imprégner loolu ambiance boobu mm-hmm. après jour bi may dem studio ba une petite anecdote bi ma bi ma xamee ni que suba laa war a dem studio ci guddi gi laa commencé di di téye sama sama émotion c'est-à-dire di concentrer toute mon émotion dans un dans un mood très triste très renfermé pour que su ma demee studio su may poser voix yi affaire bi am euh, empreinte boobu noonu donc euh, ça s'est passé comme ça après je pense que ça a marché mm-hmm. voilà je pense que noonu la noonu la affaire bi demee dans mes souvenirs. <laughs> en tout cas c'est une très belle chanson. merci beaucoup ñuy wax internet yi aussi ñu dem mhm. sa page YouTube. Mhm. Amira Aben. daal Amira Aben officielle. Mhm. daal di xool li nga xam ne moom nga fa liggéey. pour tes fans. ak aussi mélomane yi nga xam ne ñu ngi lay suivre. te Amira aussi. Euh, mun nañ jàpp ne comme bu ñu waxee benn genre dip wala ñu wax benn artiste dañu naan ni ñi ñooy mais am mm-hmm. na ay fanam munoo kii tranche d'âge bii la mm-hmm. parce que ci fan yi da nga ciy retrouver wu ay mag mm-hmm. des yoo xam ne dañuy s'identifier wu yow ci say chanson dañ koy like dañ koy enjoy de ko aussi les jeunes ñi nga xam ne dañuy nekk ci tànk ndaw dañuy dañuy gis seen bopp ci say woy ba tey ci woy yooyu aussi gis nañ ne ci EP bi am nga ci ay featuring Mm-hmm. yoo def ak Léna ak Diamant mm-hmm. uh, Express mm-hmm. est-ce que uh, xaaroon nga pour ñoom ñaar kese wala amoon nga pour opportunité yeneen artiste nga invité ci EP bi ok ba um, bi ñuy def son yi pour projet bi euh, bon, je sais euh, comment ça s'appelle genre dama def son yi ba pare son bi parce que bi ma def ak Diamant c'est pas dans le projet. Si. mais bi ma def ak Léna moo nekk si projet bi. waaw Benna voilà. Mm -hmm. donc Benna je l'avais enregistré un bon moment avant Léna ma ma di si invité Léna donc euh, ça s'est fait très naturellement ah dama ñëw woon ko ko mu déglu mu ne ma c'est nice ma ne ko est-ce que tu veux chanter avec moi dessus mu ne ma oui après ñu <laughs> je peux dire que j'ai de bons rapports avec les artistes yi nga xam ni ñoo maase c'est-à-dire ñoo bokk génération euh, ak les artistes yoo xam ni ñoo ma jiitu si si milieu bi et euh, si je reviens à la cible moi-même je ne comprends pas je sais pas qui est ma cible précise <laughs> parce que dans une journée mën naa tase ak koo xam ni mot na ma tonton wala mot na ma pape il la personne là va me faire euh, de compliments ni ma sa musique bi daf ma neex et cetera et je peux aussi rencontrer ay nit yoo xam dafa ma dañ ma naan sama doom bi deux ans la am mais yow su dégluwul sa musique du nelaw wala su ma ko tegalee sa sa benn vidéo YouTube rek xale bi dafay toog dafay jàpp ñàmburam coi vois il de personnes plein de différents types de personnes que je rencontre mm-hmm. euh, je sais pas je comprends pas mais <laughs> moi je suis ravie hein, ça me ouais je pense que Il n'y a pas de, de cible spécifique pour le moment. Mm-hmm. Donc, ça me dérange pas aussi hein. <laughs> la promotion mm-hmm. lan nga fas def am nga ay concert parce que ci mois de décembre bi aussi mm-hmm. programme yi dina bëri euh, programme nga ay tournée entre autres comme ça ñi nga xam ne nekkuñ Dakar mm-hmm. bëgg laa découvrir bëgg laa gis sur scène ngay woy aussi nga jox les rendez-vous ok donc euh, ci décembre bi wala ci début d'année bi probablement dina tëgg ay événements qui seront en live Et tout ça, ce sera, ce sera communiqué sur mes réseaux, cest Instagram, TikTok, et non. Mm Certainement, si nous fixons les on va les communiquer et tout monde sera au courant. Et certainement, début d'année aussi, il y aura des, choses qui viendront, Inch'Allah. Mm -hmm. TV à Kautef, je rappelle que Amira Aben, Borom Chiri Coco, ouais, mhm. je ne suis pas, mon moment est moom lañ dalal tey fii ci Senego TV ak Kawtef ñu fas yéene waxtaanee EP bi nga xam ne génnee na ko six titres la si je ne euh, instant bi nag mu ngi nekk en promotion mun ngeen koo xool ci chaîne YouTube Amira Aben officiel. Mhm. c'est comme ça en même temps mu ngi jox fan ñi nga xam ne dañ koy xaar ci région yi mhm. wala euh, programme yi am fii ci Dakar mhm. pendant le mois de décembre euh, avant dernière question Amira balaa ñuy dugg ci deuxième partie Amira euh, dafay dafay bëgg tout le temps les thèmes yi nga xam ne da koy aborder ci ci ci woyam tey day émotionnel dafay Euh, dafay laal lu gën a bëri amour entre mm-hmm. autres est-ce que tey tout à l'heure sànq nee nga nekk koo xam ne euh, nit ku émotionnel nga en fait mm-hmm. <laughs> est-ce que loolu <laughs> day motiver carrément sa choix wala sa titre chanson yi nga xam ne da nga koy présenter say fan je pense que oui parce que <laughs> quand je travaille sur des morceaux si mm. je le ressens pas dans mon cœur du ma du ma peut-être forcément am envie continuer si loolu mhm. donc euh, man moom ndeysaan su suma meree sama rangoñ dina tuuru su ma kontaanee sama rangoñ dina tuuru su ma triste donc mhm. état état état émotionnel bu mu nekk j'y vais suis à l'extrême et je le fais pas exprès tu vois mhm. donc euh, je pense que c'est un peu aussi euh, logique que li may def ci musique bi loolu mu suivre mu suivre c'est-à-dire que je travaille avec le cœur. Donc tout ce que je, tout ce qui est, tout ce que je fais, si euh, ça touche la personne qui écoute le morceau, c'est parce que man bi ma koy def daf ma touché woon man tamit tu vois. Mhm. Donc je pense que loolu moo tax mu kii mais je je chante aussi d'autres sujets comme euh, bon j'ai fait un morceau sur la sensibilisation contre si, si. Euh, le coronavirus. Oui. Mhm. Le featuring avec Jaman c'est euh, contre les violences faites aux femmes ak yooyu c'est des sujets qui me touchent donc euh, xam naa aspect love bi moom moom moom moo xaw a gën a kii rek mais ouais <laughs> mooy loolu d'accord euh, bon ñu jàll ci deuxième partie bi Amira deuxième partie bi nag euh, question people lay doon ak actualité tey mhm. Amira année 2022 tire à sa fin ay mhm. jours kese moo ci des mhm. tey boo doon tirer un bilan ci yow sa carrière lan nga ciy tiré ban bilan lay doon. ah je vais je vais me féliciter et je vais féliciter les personnes avec qui je travaille. Mhm. parce que su ma xoolee ci ginnaaw je vais me je me rends compte que musique le fait may def musique tax na ma màgg ma gën a gaaw a màgg ci xel. Mhm. parce que da ngay nekk di jànkonteel yenn saa ay situation yoo xam te ni. soo soo nekkulee nit ku tey wala nga nekk nit koo xam ni da ngay déglu rapidement tu peux te mettre dans une situation embarrassante donc euh, damay sant rek ñi may liggéeyal muy Meru ak Wantit ak euh, staff bi yëpp parce que ñoom ñoo nekk sama ginnaaw di waxtaan ak man di ma expliquer ay affaire mais comprendre ak sama papa ak sama yaay tamit c'est des personnes c'est des personnes indispensables mon avancement et à ma réussite parce que ñoom ay nit lañ ñoo xamante ni non seulement ce sont mes parents mais dañuy communiquer ak man comme si man seen benn assistante la wala seen benn fille la donc dañuy waxtaan ak man il me ils de me rendre meilleure te ginnaaw yàlla bu du woon ñoom je pense pas que j'allais pouvoir arriver à évoluer de cette manière et être dans le showbiz c'est quelque chose de très particulier mm-hmm. donc tax na ba Euh, nu ma mën ti toll même bu fekkee ni j'ai que la vingt je suis que dans vingtaine. Mhm. tax na ma jàng àdduna tax na ma am ay expérience yoo xamante ni dinaa ko mën a dina mën a tax ma gën a xam sama bopp. Mhm. gën a xoolaat sama bopp. ngir gën a jub rek incha allah. Mhm. donc euh, année 2022 bi évoluer naa. euh, en tant qu'artiste et en tant que personne. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est important. Oui, c'est de faire son bilan. surtout mm-hmm. ci carrière professionnelle. nga xam fi nga tolloon. ak fi nga jëm. xam aussi yi ngay éviter c'est c'est important. tey ba tey ci deuxième partie bi Amira ci année deux mille deux bi deux mille vingt deux. événement moo la gën a marqué. soit mu nekk un événement heureux ou un événement malheureux. Euh... Je pense que je vais partir sur un événement heureux. On est en fin d'année. <laughs> euh, je vais réfléchir un tout petit peu. Il y en a beaucoup. Oui, ouais, je pense qu'il y en a assez. C'est que, en fait, c'est que moi, je kiffe tellement ce que je fais que les poules vont monter d'Afrique. De moi aussi, de moi aussi éprouver euh, banner. Donc. Mm -hmm. euh, wallaay xaw ma je sais pas. je ne sais pas. genre dans la musique wala dans ma vie personnelle. dans la musique dans ta vie privée ça ça dépend de vous yaay xool fu nga gën a nekkee à l'aise Dans la musique, je pense que j'ai eu plein, j'ai vu plein de trucs géniaux, géniaux franchement. Mhm. Ah, je vais peut-être parler de, du festival auquel j'ai participé à Saint-Louis. C'était en, octobre, mm -hmm. le festival autour des cordes. Mm -hmm. Et c'était la première fois que je participais à un événement où c'était moi, où mhm. sur la scène, parce que live, Jota Def, c'était, euh, c'était avec d'autres artistes sur la mhm. scène. Mm-hmm. donc euh, j'ai galéré metti woon na torop parce que. <laughs> lu fa xewoon. <laughs> parce que euh, répétition yi ak yooyu noonu man kese la woon donc il fallait que ma ma persévérer il fallait que ma jubanti sama bopp il fallait que ma xam nga rek liggéey plus davantage. Mm -hmm. et euh, l'expérience que j'ai vécue bi may yegg ci seen bi c'est que. dama ñëw taxaw ci kanamu scène bi. ñëpp mm-hmm. toog di ma seetaan di ma déglu. Mm-hmm. et je me suis sentie comblée parce que c'est tout ce que j'ai toujours voulu c'est-à-dire que li may def li nga xam ni bëgg naa ko mhm. c'est-à-dire faire de la musique et communiquer ce que je ressens aux gens qui m'écoutent et aux gens qui m'entourent mhm. je suis en train de réaliser en fait mon rêve mhm. c'est d'être euh, musicienne c'est d'être euh, euh, devant un public qui m'apprécie et qui m'est réceptif Mm -hmm. Donc j'espère que c'était ma première scène toute seule et j'espère que ce sera pas la dernière, Inch'Allah. Mm -hmm. Voilà, donc c'est ça. Et pour l'autre question, Amon, laquelle? Un événement désagréable ou malheureux. <laughs> Il y en a Bon, je pense qu'on va laisser tomber. <laughs> On va laisser tomber parce que <laughs> dañoo génnee EP. te on va pas. waaw dañoo enjoy. waaw dañoo bëgg a enjoy duñ duñ tey Amira à mhm. chaque fois bu ñu invité aussi artiste mhm. dañuy def le tour de la toile dañuy dugg page Instagram am mhm. aussi euh, sa page sa chaîne YouTube xool quelques commentaires mënuñ lire commentaires yëpp mais tey buñ ñëwee ci commentaires yi nga xam ne dañu koy def se vidéo mun mhm. nañ jël ak quatre pour cent que commentaires yi day positif mhm. tey ñu ci bëri dañuy jàpp dañ lay définir Amira comme une personne simple Amira comme une personne naturelle mm. comme une personne aussi éloquente euh, tey euh, li nga xam ne dañ la koy wax ci sur la toile am mhm. même temps aussi à chaque sortie bu génnee simplicité bi dañ koy gis ak yenn moo yi nga xam ne dañ la koy wax est-ce que hmm. dafa am impact par rapport à ton éducation wala par hmm. ak sa fréquentation parce que mun na jàpp ne nit ki éducation am day impacter sur sa personnalité hmm. ah foofu moom je vais juste mentionner encore une fois mes parents rek parce que euh, ginnaaw yàlla encore une fois bu du woon sa pap ak sama yaay je pense pas que dinaa mel ni ma mel nii tey parce que ay nit lañ ñoo xam ni macha allah ils ont toujours été là pour nous mes frères et moi. Mm-hmm. Euh, ay nit lañ ñoo xam ni dañ dañoo comment ça s'appelle ils ont toujours été dévoués à apporter le meilleur pour leurs enfants donc euh, di leen remercier rek di leen ñaanal gudd fan ak wér bu ñu fekkee suñu njëriñ et que sama mag tamit bi génn àdduna yal na ko yàlla yërëm. internet Senego TV ak Kawtef ñu leen di gërëmaat rek ni ngeen ñuy taaxirloo avant dernière partie lañuy ñuy ak Amira question quiz lay doon nag. Mhm. dinañ la tooñ cokkaas la Amira. waaw <laughs> <laughs> question bi est-ce que Amira elle est nit ku gaaw gis boppam la ku gaaw a mer ku gaaw a buddee. Euh. <laughs> Euh, bon, je suis. Non, je ne hmm. suis pas susceptible. je ne suis pas susceptible. Je ne suis pas. Euh, je suis pas une personne qui a détails. Hmm. Je, je focus plutôt sur les personnes qui, qui sont positives. Hmm. Et si jamais ma jàkkaarloo ak nit boo xamante ni dafa bëggul positif ba <laughs> dama koy damay damay dem rek damay bañ a jege ko wala am nu ma doxalee ak moom comme ça y aura pas de. d'embrouille wala yooyu noonu mais si su fekkee nit ki amul chance ma bëgg ko bu baax a baax a baax kooku dama koy sonal lu ma def lu ndaw dama koy sonal loolu moom je kii toog fii sax xam na ko <laughs> mu ngi reetaan da <laughs> nga koo sonal <laughs> trop sax et deuxième question Amira ban anecdote boo xam ne mhm. à chaque fois boo ko boo ko boo rek da ngay reetaan doo mën a téye sa bopp <laughs> ak bëri mais am na benn boo xam ne boobu moom franchement ça m'a fait rigoler c'est euh, am na benn jour dama jàngi woon ñu wàcc euh, est-ce que du woon weeru koor bi waa je pense euh, dañoo amoon cours en fii mm-hmm. weeru koor bi ñuy wàcc un peu avant ndogu après ma am koo xam ne ñoo bokk classe ñoo bokk promo mais genre mosuñu gisee parce que xam nga rek université dañuy bëri donc duñu xamante ñu ñëpp mm-hmm. après kooku ñuy doon ehm, génn di dem di génn amphi bi mu ñëw rek ba si man rek taxaw ni ma ça <laughs> mel ni ku ma xam ne ko ça va bien mu ne ma yow la Amira ma ne ko waaw <laughs> mu ne ko mu ni ma mën naa jël sa numéro maa ngi yow ñoo bokk classe de mu ne ko amul problème jële sama numéro mm-hmm. après mais en fait ma ce qui m'a fait ci loolu c'est que il est venu comme koo xamante ni man ak moom on se depuis ans mu ñëw rek taxaw sama ni ma ça yaa ngi si jàmm mu ne ko man man kii maa ngi si jàmm alhamdulilah mu waxtaan ak man après mu dem def defu ko benn pression parce que malheureusement je j'ai pas envie de parler de trucs négatif mhm. mais euh, yenn saa yi da ngay romb ay nit wala da ngay croiser ay nit yoo xam ni mhm. da lay xàmmee mais ils ont pas forcément le même la même intention positive que ki ma ki may wax ni sama waa bi. Mm-hmm. donc euh, voilà si tu so soo rombé soo croisé ay nit yoo xam ni noonu la ñuy réagir mm-hmm. ah am na beneen mën na wax beneen. <laughs> am na beneen waaye boo di génn di génn université bi. Mm-hmm. je voyais la personne est venue dans la direction opposée. mais waa ji ndeysaan. mu ngi dox mi dafa mi ngi ñàngal quoi parce que instant boobu naaj mu ngi tàng et mhm. maa ngi naa mais tonton bi xanaa dafa mer wala quelque chose waaye bi mu egsee ba ci sama ba ci sama niveau mu gis ni man la rek nga gis kanam bi changé waaw Amira Abed ça mu ne ko waaw bien ah man dama la faa ma ne ko oh merci beaucoup c'est gentil ak yooyu noonu mais mhm. je me suis rendu compte que c'est extraordinaire li ñuy yàlla may ñun artistes yi c'est-à-dire mhm. que tu peux limite changer l'humeur d'une personne du mhm. tic au tac tu peux changer la journée de quelqu'un c'est-à-dire que kooku mi ngi dox près na mu ngi am lu ko tracassé wala mi ngi am lu ko affecté ba mu mer mu tase ak man rek son humeur a drastiquement changé mu kontaan euh, y a pas c'est le, le plus beau métier de la terre parce que tu rends les gens heureux. Mm -hmm. Si tu veux les rendre tristes, tu les rends tristes <laughs> par je ne sais pas, tu vois. <laughs> Donc voilà, j'ai énormément d'anecdotes, mais mm -hmm. en grosso modo, je, je kiffe quoi, je kiffe ce que je fais, franchement. C'est cool. Ouais. Et tey Amira boo doon ñëw di définir amitié en trois mots lan lay doon. euh, amitié. Mm. Par exemple, sincérité. Voilà, c'est une base. En trois mots. Amitié. Mm-hmm. Complicité. Mm-hmm. Euh, muñal sa moroom. Mm ne pas waaw rafet njort voilà. je pense que parce que moi j'ai beaucoup de meilleurs amis du ma leen citer parce que voilà ñuy naan a ah, am na ko euh, fàtte na ma et j'ai plusieurs meilleurs amis ñoom sax xam nañ seen bopp mm-hmm. euh, on est tellement proche te ay nit lañ ñoo xam ni bi ma leen xamee ba tey depuis qu'on est adolescent euh, dara mosul ñaaw quoi c'est des gens yoo xamante ni jarul a des choses yoo xam ni on n'a même pas besoin de parler de certaines choses pour que ça se règle wala pour que ça ça se passe mieux. Donc, c'est des personnes, j'ai beaucoup appris d'elles et je pense qu'elles aussi, elles ont appris de moi. Et la chose la plus importante ci ànd c'est-à-dire que ki ngay àndal mu mm. mun laa apporter dara yow tamit nga mun ko apporter dara mm. c'est pas forcément de l'argent wala mm. des biens wala yooyu noonu mais si tu peux rendre cette personne meilleure de par ton comportement mm-hmm. c'est y a pas mieux quoi mm-hmm. donc man loolu laa jàpp tout à fait ouais. d'accord parce à chaque fois damay définir amitié comme mm-hmm. mm -hmm. conflit d'intérêt mm -hmm. dans la mesure où tey mm-hmm. la personne boo ko mayee jàmm yaatal mm-hmm. ko di ko apporter un un plus sur sa ci ci àddunaam en fait kooku day yàkkamti di la gis day wóolu di wax ak yow di partager yenn événement yi nga xam ne wala yenn secret yi nga xam ne da koy téye ci boppam avant dernière question est que Amira est prête Mm-hmm. à pardonner à une personne bi nga xam ne daf ko fen euh. dans le bon sens fen la pour defar fen pour nëbb fen pour ah su ma su ma expliqué cas bi yëpp nu mu demee bu ma gisee ni jar naa baal dinaa ko baal bu fekkee jaru baal dinaa ko xas bu mu ràpp soor ko baal soog ko <laughs> baal i naa ko mais fallait pas faire ça c'est pas bien je vais dinaa dinaa wax ak nit ki euh, que dara jarul fen quoi franchement man sama papa sax loolu la may wax tout le temps am na benn jour ma waroon génn dama ko dama leen doon def une blague tu vois mhm. ma yéete quoi 23 heures ma ne damay génn sama yaay ma ah te li ngay dem defi nii mënoo def ji nii mënoo bàyyi ba suba ma soog ko def mu ne ko non non il faut ma génn léegi nii nii nii sama papa mu ne ma ah man de en tout cas daal Euh, a pas de problème parce que je sais que toi tu ne nous tu nous dis la vérité et que tu mhm. donc euh, c'est juste pour dire que relation entre deux personnes mm -hmm. si honnête rek même soo fenee wala nga wax loo xam ni du dëgg pour defar wala pour autre chose mhm. nit ki su xamee ni que yow su n'est pas tu n'es du genre à ba a wax dëgg dina gën a apte à baal la que incha allah mer wala autre chose wala bu mere la mhm. oui mhm. la dul amira loo xam ne du ko mës def ci àddunaam Euh. pardon sama téléphone mooy sonné si. vas-y vas non nodd euh, mm-hmm. ah, la nodd. lu ma dul mës ah xanaa yàlla tere ko waaye je pense que. comme loo xam ne da ko ragal. ko ragal ah d'accord d'accord euh, non franchement man instant bi fi ma toll nii je suis dans l'optique de de de découvrir plein de choses d'avoir plein de nouvelles expériences ah xanaa ma def benn affaire ma ma ragal ko wala ma mu tiital ma après ma bañ ko defati peut-être mais la moom j'ai rien en tête. yaa ngi open daal. waaw je suis très open par rapport à ça. Mhm. Mhm. Amira lan ngay wax say fan. ñi nga xam ne ñu ngi lay suivre à travers Sénégo ak Kawtef ak aussi sa EP bi nga xam ne génnee nga ko mm-hmm. euh, bu riche nag très oh, sincèrement <laughs> liggéey bu set macha allah merci beaucoup lan lan nga leen di wax je vais remercier parce que euh, j'ai pas forcément eu confiance en moi, mais commencé sur ma carrière. Et comme tu disais tout à l'heure, tous les commentaires positifs, toutes les remarques positives que les gens autour de moi, à travers mes réseaux ou les numéros croisés dans la rue, me font, me, me, me permettent de d'avoir beaucoup plus confiance et d'être beaucoup plus déterminé à avancer et à atteindre les objectifs que j'ai donc euh, sama fans yi ñi may déglu ñi may encouragé ñoom ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm awma seen fay et de leur dire que ce n'est que le début et que on est à avancer et à atteindre le sommet incha allah et sans ñoom du ma ko mën a def donc euh, di leen xaar leen ma parce qu'il y a d'autres surprises qui arrivent encore Inch'Allah mm-hmm. donc euh, voilà c'est ça je pense et je te remercie toi aussi de m'avoir accueilli aujourd'hui mm-hmm. je suis très contente partagé mm-hmm. c'était Amira Aben je rappelle que EP bi génn na six titres la am na variété musicale yu am solo di ngeen fa fekk afrobeat di ngeen fa fekk juglobe di ngeen fa fekk aussi musique française je ne suis pas mm. <laughs> man mooy sama préféré ça a plaisir Amira. un plaisir est partagé merci beaucoup nañu fii dalal ci Sénégo. merci euh, jëf internautes yi ñu jox leen dig daje ak beneen daanaan jërë ngeen jëf.